actuellement ils sont terrorisés par la maladie euh, sont mais sont parce que nous, avons nous génn seen biir kër yi place Nous sommes benn place pour dem problème donc euh, vu que virus bi ni mu mel ak infection bi vu que à deux mètres à deux mètres de la personne qui a euh, infection bi waaw fa ñu nekk ñoom fa la virus bi soso fa la jóge moo tax ñu mettre leen en quarantaine tëj buntu yëpp kenn duggul kenn génnul euh, noonu la demee pour l'instant amagu ci kenn ki nga xam ne attrapé na maladie bi waaw mais ñoo ngi koy daw lu ñu mën mais comme li may wax rek infection bi ajowul nit ki di nekk sa wet dafa gaaw voilà donc li ñuy ñaan rek mooy que ñu trouver rapidement des solutions génne leen fa am na ay médecins au cas où ñu soupçonné benn fièvre wala nit ki commencé am ay toux wala ay maux de tête kenn ku ci nekk wax nañ la la nga war a mën a def ba nga xamante ni boo gisee signes yooyu si yow mën nga contacter directement benn numéro bi nga xamante ni médecin yi dinañ ñëw directement à ton secours.